te ñaari mbër yëpp ku ne da nga am qualité am loo mun ak loo munul quoi mais combat bu nakaree expliqué la quoi bu métti mais ku si nekk da am sa fort ku si bàyyi sa fort tamit si làmb ji nii nii la bett jënd fekkee ku nekk lu mu wax loolu lay appliqué làmb bi ñu wax ko moom loolu lu mu wax bu dee loolu lay appliqué wala bu la la gee dee lu am jël bii nii xam ban làmb mais bii day am chute te du mat cinq minutes maa la wax loolu dañuy daje ñoom ñaar par force. Lac de Guiers 2 du bëgg a li ko dal combat bi dal ko quoi pour maanaam dëgg na si lu ne tamit quoi combat bee passé. Lac de Guiers 2 si boobu du a combat bi demee yàgg. attention man maa ngi tamit si waxuñu jàmm yi nii ñu naan Lac de ëpp doole mais attention nañu xam ne doole ak masse bokkul doole leneen la si doomu aadama man gisuma ne ëppante nañ doole 50 50 la foofu laa gis quoi doole ku ne amul gàllaaj amul sa lamb day fekk duggoo si ma defaa fois nit ki di nga am intention intention jóge sa kër ne waaye su ma demee nangam laa koy def am intention bi si sa yaram nga ñëw ba làmb ja sa xol mooy am intention mais sa yaram du dem day si mbër côté musique am na mais da gëm sa bopp ba pare foog nga gëm sa bopp sa bopp ñeme ko moo tax nit ki la jekkoo ragal du la mos a daan na mu ne combat yi moo moo nar a gën a neex si combat yi da nga gis xeex nga gis bëre combat ñoom ñaari mbër par force la dajee ku bëgg a dem lamb ji moom ko ko taara moom tàmb nga taara nga lamb ju rëy taara nga lamb joo xam ne gaan dootoo ko dabu si lamb di nga gis combat bu doy waar bu doy waar sa ngay gis un choc au sommet le président de la république Macky Sall